muy jàngkat bi nga xam ne ni moo ñu fas yéene wettali tey ci plateau bi euh, ne ne damay sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di sant sunu Serigne Serigne Ahmadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké waaye di sant bu baax Bougane ndax euh, ñii ñu invité tey dugguleet ñu toog ci télévision bi fii la njëkk jaar nekkagul association booba groupe whatsapp la groupe whatsapp bi ñu ngi ko taxawal le 9 juillet 2016 ma dalal leen le 3 février 2017 boobu groupe whatsapp la ci ndigalu Bougane ndax buggaan daf ñoo sas maag Ablaye Mbaye Peex ne ñu lépp loo xam ne dafa jëm ci këru diine yi bu leen ma ci xaar ndax amuñu lu dul lislaam te ñun seq lislaam bi mooy këru diine yi kon lu ngeen yaakaar ne war ngeen ko def ci këru diine yi rek na ngeen ko def bi ñu taxawalee groupe whatsapp bi le 3 février 2017 ma dalal leen euh, fa ba tàkki euh, nen ne barele lee ko gën barele lee ko gën ñii li ñuy def barke yi ci dugg barke kan mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, Père Boros na tuuti rek ci réalisation yi xam naa mooy sababu waxtaan wi tey ndax ñii dañoo def lu rëy te lii ñu def man dama ko mus a gëm muy autofinancement wu yoonu murit parce que tey yoon wi toll na foo xam ne nii waratuñu yaakaar ci kenn ku dul ci ñu ñunu neen ndax lu ñu bëgg a def mun nañ ko def am nañu mbooloo mi am nañu pas bi am nañu pasteef bi kon yaakaar naa ne waxtaan wi tey dana am solo danañu jéem a euh, dugg ci taarixu euh, mbooloo mi muy association bi ndax am na taarix ni ma la ko waxee ñu ngi ko sos le 9 juillet 2016 ba tey ji ñu def lu rëy Touba ba adduna bi yëpp di ko rafetlu ñuy ñaanal bu baax nag xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir yal na fi yàgg te ànd wér bi mbooloo mi demee di ko wax. moom moo njëkk a jënd kart jëndal juróom-ñeenti nit carte at une année entière ñaanal leen sant leen euh, bañ fa jógee ñu dem ci sëriñ Sidil Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides moom it mu rafet lu xalaat bi ñaanal leen jox leen ci ndigal ñii ci ndigal lañuy ñuy wéy moo tax li ñu mën tey ñu mën ko ñu ngi leen di ñaanal yéene ji ñu am yan leen ci borom bi defal lu kawe seen njort te lépp lu ñuy yëngu itam rafet nañ ci njort ne danañ ci daje ak Serigne Touba. amiin ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon ma delloo la kàddu gi ba ñu ñëw ci waxtaan ba ñu ñëwaat incha allah alors papa euh, euh, li ngeen wax loolu la xam naa dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal ndax tey moo tax euh, kii di Serigne Fallou Ndiaye toog fi mais dinaa ñëwaat ci moom xam naa damay dem rek ci kii di Serigne Bassirou Gueye parce que maa ngi koy wax sànq ñu am gan gu rëy sëñ bi ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau.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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant sunu boroom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ñu ko alquran jàngale inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi kon nag yaa ayuha amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman di sant tay gërëm tey yeesal sunu njébbal ak sunu lépp ci alxutbul ansam aljaami al awsaafi almardiya wa taqdimu al azaliya wal manhaju al muhammadiya muhammad ibnu muhammad ibnu habibillahi mbakki xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi wa sajaa wal karam borom tubaa cheikh muhamdinil muntaqa sun borom gën ko fee yàggal te dolli ak wéram ba li mu yéene liggéeyal sëñ tubaa lépp mu matal ko te ñu ko ak moom yàlla yàlla mottali yéene sëriñ muntaxaa ci murit yi waaye yal na yàlla mot li yéenay murit yi ci sëriñ Muntaxa euh, murit yëpp a ko bëgg murit yëpp a ko sob murit yëpp a ko yaakaar yàlla na fi yàgg loolu te wér ci barkeb sëriñ tubaa ak mboolem njabootuk sëriñ Touba gépp soxna ne ne maa ngi nuyu ni ko sëñ laay waxee léegi sama kilifa gu tedd googee fa njaareem di euh, sëriñ Souleymane Gaye moom sëñ Abdou Ngone moom sëñ Mamour Yacine di ko ñaanal sun borom te tabaraka wa la gën ko fee yàggal te dolli ko ak wéram ba li mu yéene ci alquran ak yoonu Serigne Touba rawat naag wasilaam di Cheikh Mouhamadul Fadil lépp mu def ko ni mu ko bëggee tañ ko ànd ak moom di nuyu sunu mag ju baax ji ca kër ga di ab taawam nga xam ne moo nu jàngal alxuraan ba ñu mën a tey toog ci plateau yi di wax lu ñu mën a dégg mu Cheikh Mamadou Fadil di sama sëriñ maa ngi koy ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te wér ak njaboot gépp nuyu nag jëwriñi daaru minam jëpp di sëriñ musa Mbacké moom sëriñ Moustapha Bachir sëriñ Moussa Nawel di sama sëriñ maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér bi sëñ Ablaye waxee léegi sëñ Mbacke Madina sama xol dafa sedd lool ndax kaamil alxuraan bi ma njëkk a bind ci àdduna baayam lañ ko jox sëñ Moustapha Bassir ba ca topp ñu jox ko Cheikh Mahmoudul Mountakha mii di xalif général des Mourides ñu tuddee ma Cheikh Mahmoudul Bachir kon tey nag am nañu mbégte lool mu yaatoo yaatoo yaatu ñu ngi nuyu bugaan bu baax a baax a baax gis nañ pësteef ak importance bi mu jox yoonu murit wax dëgg yàlla ba koor gi tàmbulee ba léegi li yoonu murit amagun ci ay jataay ci télé bi ci télé bi lañ ko jëkk amee te duñ ko cof duñ ko wetal dañuy joxe dëgg dëgg li moom yoon wi moom loolu nag wax dëgg murit yëpp gis nañ ko sant nañ ci itam euh, li ma gën a neex ci palaato bi mooy magi murit yi ma ko bokkal muy sëñ Abdoulaye Mbaye ak sëñ Abdoulaye Lam ma leen di tudde ñaari Abdoulahi yi sëñ Abdou Khadir yi ak ay ñaari Abdoulahi yi sëñ Abdou Khadir yi yàlla na yàgg ci barkeb sëñ Tuubaa maa ngi nuyu sama xarit sëñ Saliou Xule hmm? moom murit la sëñ Saliou murit la di nuyu bu baax a baax géwélu xaadimu rasul ci toogaay bu jekk bi la soxna faatu maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax soxna nee ne sama xol sedd na maa ngi lay nuyu ci yar bi ak dal gi ak teggin yi di nuyu sëñ Mouhamed waaw euh, bu baax a baax ndax Mouhamed moom dégg naa mooy joxe xéwal gi <laughs> maa ngi nuyu sëñ Xaadim Kebe bu baax a baax dëgg la ak sëñ Mouhamed mbay gis naa cofeelam ci Serigne Touba soxna Ndeye Fatou jërëjëf Euh, soxna Ndeye Fatou Niang mu sëñ Ablaye Niang yow itam ñu ngi leen nuyu bu baax a baax waroon a jiital sax ci nuyoo bi suñu kilifa gu baax gi toog ci biir jataay bi sëñ Abou Mbacké moom sëñ Moustapha Xasida moom euh, dafa jiital ay kilifaam rek topp seen ginnaaw te lu mbir rëy rëy rek da koy dox ba mu sotti mu toog ca ginnaaw kon Mbacké yàlla yàgg yàlla yàggal taxawaay bi te wéral ci di nuyu sama sëriñ bu ndaw ba jëkkër gi ga soxna Toora moom daf koy tooñ rek naan dafa mën a yàq waaye moom yàqut dara yàlla na fi yàgg te wér rek <laughs> amiin barke sëñ Tuubaa kon ba kàddu gi si waat jërëjëf lay jaajëfal bu baax a baax yow itamit alors euh, di ci ànd ak kii di euh, Serigne Fallou Ndiaye teewal fi Touba ca kanam mu di président fondateur u Touba ca kanam président également de la commission santé euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau waaw kay jërëjëf soxna Nene maa ngi nuyu mboolem ñi ma seqal plateau bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol ab laay may Peex mu jottali ko ñëpp di am mbégte bu baax nag ci dalal gi nga ñu dalal fii eh, tey nag dafay bis boo xam ne dafa spécial ci ñun ndax xam nga weeru koor bu teroo jumaay Tuubaa ja bi lañuy naafi naafila tey jii la kaamil bi di mat ñuy ñaan ñuy ñaan mat goog muy mat yàlla na doon jàmm ci mboolem jullit ci àdduna bi di jàmm ci mboolem murit yëpp di am mbégte bu baax nag ci sunu mbokk taalib yi ñu seqal fi ndax tey ñi fi nekk ñëpp njabootu Serigne Touba lañ e, ñuy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba liggéey bi nga xam ne mu ngi ko sumbal Serigne tubaa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mu def ko ni mu ko bëggee te ànd mboole mboolem murid yëpp di nuyu nag sunu jëwriñ Serigne Abibou Mbacké moom Cheikh du Fadel bi nga xam ne moom mooy jëwriñu tubaa ci kanam ak ki nga xam ne moo topp ci moom di Serigne Abdoulahat moom Serigne Abibou imam ak sëriñ Abdou Fatah bi nga xam ne moo jiite liggéey bii di Touba ci kanam waaye nag di beral nuyoo seriñ aboo Xasaayit mii nga xam ne moom la ñu àndal ak sëriñ Cheikh Amar mi nga xam ne ñoo ànd liggéeyu Touba ci kanam bi yëpp euh, di wax daal ñu ngi sant borom kër gi bu baax di bëggaan ak soxna Ndeye Fatou mi nga xam ne mooy moom mën nañ ne mooy suñu jëwriñ sax fii ci ci kii bi ñu ngi sant bu baax di leen gërëm. ñu koy nuyu bu baax a baax soxna Ndeye Fatou Gueye di nuyu euh, sëñ Abo Mbacke également bu baax a baax moom itamit euh, laata may ñëw nag côté côté côté ñoom Mouhamed ndaxte côté bi moom macha allah toogaay bi rafet na lool laata ma ciy ñëw damay terminer rek ci plateau bi euh, nuyu Cheikh Mbacke Mboup Cheikh Mbacke maa ngi lay nuyu. nee na sama ngi lay fay bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada. seyduna muhammadin wal ali wa sahbihi sabinna wali wali barke borom taif maa ngi nuyu bokk yu baax yi ne ci biir plateau bi yëpp te am mbégte bokkaat ko ak ñoom ne Aïcha sama papa sama xarit sama idole sama référence El Hadj Abdoulaye Mbaye Pekh yàlla na yàlla guddal sa fan di nuyu papa Abdoulaye Lam Saliou Khoule ne soxna Fatou Abdou ak Mouhamed borom teraanga yi di nuyu nag sunu gan yi di gan yu tedd muy Cheikh Amadou Bachir Gaye ci xam-xam rafet bi yàlla na yàlla guddal sa di nuyu sama rakki bopp ma am fierté lool bokk ak moom Daarul Xuduus muy Serigne Fallou Ndiaye Touba ca kanam ca kanam da na naase jur doom tudde ko Touba ca kanam Ndiaye loolu kenn mësu ko gis c'est une grande première yàlla na nga dund ba mu liggéey ci liggéey liggéey bu rafet te mu wut la ci barke Cheikhul Khadim di nuyu sunu gan yu baax yi Serigne Khadim Kebe di sama rakk di sama xarit soxna Ndeye Fatou di sama doomu baay su baay bu baax ba yàlla na xëfee aljanna yàlla na ko xasi day féete fépp barke maa ngi lay bégee nee naa sa maa et toute l'équipe de média médias, des hommes et des femmes déterminés, se donnant à fond, donnant le meilleur d'eux-mêmes. ba tey andi raay woo xamante ni nii kenn mosu ko gis ci réew mi mooy tele bi nu gën a seetaan ak rajo bi ñu gën a déglu ci réew mi loolu liggéey bu la bu teg ci professionalisme waaye jël askan wi teg ko seen kanam yàlla nañu jiglaay salaamaaleykum wa rahmatullah. Saliou Khoulé nuyu nañu la. soxna Nene maa ngi lay fay nuyoo di di santaat bu baax alhamdulilah lazi alaman ixsaana Euh, gannaaw ba ñu ko sante moom mi nga xam ne mooy buur te lu mënti doon moo ko dogal ci fépp moo tax saa su ne rek Baye Abdoulaye may ñaan yàlla ñuy xiir ci wax lu baax ak di koy def euh, di julli ci sangu-sang yi Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam di sant bu baax suñu yaakaar te ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul euh, di ziar sama sëriñ ma nga daaru muxti maam Thierno Ibnu Seyduna Ousmane ma nga sukóor yi toog maa ngi koy ziar bu baax Mbàkke di di di di yeesal sama njëbbal ci moom di nuyu ñi ci plateau bi yëpp euh, soxna nee ne tey plateau bi euh, maa la daan wax dañuy noos tey dañuy gën a noos tey waaw <laughs> ah, tey la tey nag tey la ñuy noos ndax Cheikh Ahmed Bachir mii gis nga ko nuyoo bi mu sedd fii lay teeree. ci grand palateau bi GP bi <laughs> fii lay teeree euh, Cheikh Mbacke wax na ko léegi ñi ngi ñi ngi félicité équipe bi yëpp. Kantar ñoom xam nga ni seen ñoom ñooy yëngu ci wàllu médiamétrie ñoom ñooy mesurer audience yi. dëgg la faraluñu kenn. seen TV Zik FM la ñuy seen TV la ñuy seetaan Zik FM la ñuy déglu loolu la yàlla dogal loolu moom kenn mënu ci dara àdduna baaxoo coow ku ne xam nga ki la mën da nga ko dul nangu. waaw léegi nag tey moom lañ koy gën a prouver ndax Serigne Khadim Kebe mii nga indi. dëgg la moo doon jàngkatu sëñ Sidi Mokhtar. moo dafa ànd ak waajuram. dem ci sëñ Sidi Mokhtar. ne ko Mbàkke damaa bëgg yóbbu sama waajur màkk waajur wi dem mbay tontu sëñ Sidi Moxtaar ne waajuram bul tontu sëñ xaadim man la defal lii xaadim mi sama xaadim la màkk bii mu lay yóbbu man maa la waroon yóbbu màkk man la ko defal sëñ xaadim kebe mii fanaan na tant lu dul jeex ak euh, suñu suñu xalif général bi moo doon jàng katam li may wax nii murid yaa ngi may seetaan plateau bi tey comotoogu fi cooma toog fi kii baayam ku ko xam xam ni yoonu murit moom ci pionnier yi la ci yi la tey jànkatu xasaay di bu ñu ñemee baayam a tax amaana am na loo xam ne nag waruma cee xuus sax ndax maa fi gën a tuuti man rajo balaay nekk bëccëg bi fii noosukaay laa ko def guddi gi macha allah yaa ngi dégg dama koy ñaan dara nag na ma ibbilee muxaddimatul amda fil mazaya al miftax incha allah buy bee muxaddimaat murit yëpp dinañ kontaan jullit yëpp dinañ kontaan téléspectateur yëpp dinañ kontaan di gërëm bu baax nag président la Diop mooy sama prési président la Diop maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu président Mamour Kandji day ànd ak ñii ci liggéey bi waa Touba ca kanam alaaji Mamour Kandji hmm. moom xam na ko bu baax di la gërëm bu baax soxna Nene jërëjëf macha allah am na solo xam naa euh, léegi moom lay ubbee incha allah euh, soxna Fatou Abdou Nene maa ngi lay nuyu soxna maa ngi lay ziar bu baax a baax euh, di nuyu sunu papa yi papa Abdoulaye mbay père ak papa Abdoulaye Lam di nuy bu baax Cheikh Mbacke Mboup ak Serigne Saliou Mouhamed Mbaye ñu ngi koy ziar bu baax ak Mouhamed Momo Wade euh, am mbégte dalal fi Serigne Bassirou gay waaye am mbégte dalal fi sunu soppe be également Ndeye Fatou Niong ak Khadim Kebe di ziar nag euh, fi nga xamante ne moom mooy Daaru Xuddoos di ziar Daaru Muxti ak Daaru Marnaan sëñ Khalil Mbacke di xalifa sëñ Modou Matar euh, di ziar nag fa nga xamante ne mooy Louga waa sëñ Sam mbay ki nga xamante ne moom mooy xalifaam di maam Cheikh mbay maa ngi koy ziar yow xam nga yow xam nga donc maa ngi koy ziar bu baax a baax euh, euh, ndax fa bokk ndax sa borom kër ku ne mooy sa sëriñ sama borom kër foofu foofu foofu la jokk waa kër maam Cheikh Mbaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di wax rek ne maa ngi ñaanal lépp loo xam ne yëkkati nañ ko fi ni xasida yëkkati ko fi it ni waxtaanu sëñ Touba yàlla na dal sama mag ja nga xamante ne tey dafa dëddu muy euh, bàcc Diouf di Samba foofu ci Parcelles Assainies unité 2 ñu ngi koy jaal ay mbokkam démb rek maa ngi fi tudd rakkam joo xamante ne maag moom ñooy ànd depuis ma nekkee xale ba tey muy tiis boo xam ne dal nañu donc ñu ngi koy jaal ay mbokkam di ko jaal Sénégal yëpp di la nuyu bu baax a baax ne ne nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV am na solo moom moo yow moom sa nuyoo dama koy leb ba ma ñëwaat damay dem euh, jox euh, Mouhamed mbay euh, moom laay bàyyeel présentation bi fi mu fi mu toogee noonu Mouhamed sangu-sang yi nuyu naa la sallallahu alayhi wa sallam